ñetteelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi seede seede mooy wax mbooloo mi li yàllay def ci sa dund ak itam ni mu lay jàngalee loolu mooy soñu ñeneen ñi tey dëgëral sa ngëm nit ñi mën nañu werante ci li mbind mu sell mi wax waaye mënuñu weddi li xew ci sa dund werante mën na dàq nit ki waaye seede dina xëcc nit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 soxla nañu ab musalkat tàmbalil ci njalbeen ga ngir ñu mën a gis ne bakkaarkat lañu yu sànku te sore yàlla noonu dinañu mën a xam kan mooy yéesu ak lan la def njàngum kàddug yàlla jàng kàddug yàlla mooy tax ñu xam lan la yàlla namm ci nun te di ko toppatoo noonu la kii soog a gëm yeesu soxlaa kàddug yàlla mooy ñam wiy dundal xelu kiy soog a gëm yéesu war nañu jàngal kàddug yàlla gi nit kiy soog a gëm yéesu ngir ngëmam màgg ci moom kooku itam gannaaw gi dina mën a jàngal ñeneen ci sunuy nettali kàddug yàlla lañu tuddee mbind mu sell mi kàddug yàlla juróom benn fukki téere la ak juróom benn ñu boole leen muy téere bu sell bi maanaam biibal bi téere bu sell bi ñaari xaaj la benn xaaj bi mooy kóllëre gu jëkk gi beneen bi mooy kóllëre gu bees gi téere kóllëre gu jëkk gi mu ngi wax ci kóllëre gi yàlla fasoon ak waa Israël téere kóllëre gu bees gi mu ngi wax ci mbirum kóllëre gi yàlla fasaat ak ñi judduwaat linjil yi ñooy ñeenti téere yi jiitu ci téereb kóllëre gu bees gi ñi bind di macc mark luk ak yowaana bind nañu ci mbirum dund yéesu téere jëf ya moo ci topp jëf ya ñu ngi wax ci mbirum fukki ndawi yeesu yaak ñaar ak ci mbirum ñi jëkk gëm yeesu li daree rom ba ci peeñu yàlla mu ngi ñuy jàngal li mu bëgg ñu def ko ku nekk ci boppam ak mbooloo mu gëm mu nekk lépp li nekk ci kàddu yàlla gi mooy li yàlla wax jaare ko ci ay yonentam mbind mu sell mi mépp dañu ko xaaj ay saar ak ay aaya loolu moo ñuy yombalal jàngum téere bi booy seet dara ci téere bu sell bi dangay jëkk ubbi téere bi mu nekk nga wut saar bi ba noppi wut aaya bi léegi ma leen juróom lu tax dajaloo di màggal yàlla ak a jàng kàddug yàlla gi am solo ndaxte war nañu suuxat sunu xel ci ngëm gi ba màgg ci ba mën a liggéeyal yàlla. juróom benn nan la ñu yàlla di jàngalee li mu bëgg nu xam ko. ci mbind mu sell mi lay jaare maanaam biibal bi. juróom lan la lañu war a def bu nit dee jàngal dara lu jëm ci yàlla wala liy coobare yàlla. war nañu seet ndax li nit ki jàngale dëppoo na ak téere bu sell bi wax. juróom ci lan la téere kóllëre gu jëkk gi di wax. mu ngi wax ci mbirum kolere yàlla ak xeet bi mu tànn maanaam waa Israël. ci lan téere kolere gu bees gi di wax. dafay wax ci kolere gu bees gi yàlla fas ak ñi gëm yeesu. fii la nettali bi yem.